قلوب العالمين بأسرم علي والبسني قبولا بسلمات وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا بالأحوال تخزين جزى الله عنا شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا عن مقدم البراء شريف الطائر طيبة الميزان خيرا والدعن جل صدبعك جزى الله عنا شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا عن قول صرف سيد البشر تيجاني خيرا وارد عنه رد الله صدبعك إلى الله وعنها شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا علي الأبر قطب الرباني زيد المحمود تيجاني خيرا وارض عن ورد الله صوت بعد جزا الله وعنا شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا عن شيخ جماعة بباس العلامة البرك الحاج حسن المنصور الفاسي تجاري قيرا وارض عنه لنا صد بعد جزا الله عنا شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا عن شريف محمد الحبيب تجاري خيرا وارض عنه لنا صد بعد جزا الله عنا شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا عن شر حسين عبد التيجان خيرا وارد عنه ردا لا صوت بعد يتهلا عنا شيخنا وسيدنا ووسيلتنا ومربينا عبد الرحمن بن عبد الرحمن التيجاني خيرا وارد عنه ردا لا صوت بعد يتلأوا عنا جميع الأشياخ والوالدين والمقدمين خيرا وارض عنا وعنهم رضا لا صوت بعد وجعلنا من عامل اللواء حوارهم ووارث أطرارهم وارزقنا حسن تعلق بهم وأعد علينا من بركاتهم وأمتنا على ملتهم وبث عليها واحشرنا معهم في زمرة الأولياء مع نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في دار العليين اللهم يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والإثبات في هذه الطريقة التجانية ما إدم من شروطها إلى الممات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 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فاجرب الله الأمثال للناس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 الجد عن الصحابة أجمعين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xam naa mbokk yi ci suñu tur ak turu aïmma yi nga xam ne ñoo jiite jàkka ju tedd ji leen di Abdallah Dem al imam Hassan Jonn ngi ñuy toog ci mbooloo bi Bilal Cheikh Mouhamadou Moustapha ak mbooleem aima yi ak nuwaar yi nga xam ni ñooy jiite bërëb bu bi ci seen tur la ñuy yëkkati kàddu nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tabarakallahu xam naa bu ñu jëlee nuyoo beeg ziar bi jaarale ko ci loxo ni ko al imam Idrissa Diagne waxee Ismaïla Diagne ci. seetu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa di Cherif teew ci jotaay bi yaakaar naa bu ñu ko ko joxee nuyoo bi ñëpp danañ ci jël seen wàll incha allah kon Cherif ñu ngi lay la ziyaara di la wàccee sa wàccuwaayu maam di ñaan borom subhanahu wa taala yal na yàlla sàmm te aar di nuyu bu baax a baax di tatagal di wax sax la waykat ثم بشرى لنا ونيل المربي وهذا الإمام مربي يربي بلا خلوة ولكن بفيض الرحيم السلام loolu la ñu nuyoo suñu sëriñ suñu soppe suñu wasila Cheikh Abdourahmane Bari di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na ko yàlla sàmm ah moom day xam naa la mbokk ma waxoon rek la ñuy wax ndax jotaay bii bu ñu fi toogee ñun ñëpp yëg nañ ni dañoo war a sant suñu borom subhanahu wa taala loolu rek lañ yëg ci jotaay bi ndax bisu tey mooy bisu aljuma mooy sayidul ayyam bis yëpp bisu tey bi mooy seen sànq waxtu yi ñu nekk di ngoonu aljuma mooy waxtu bi gën a tedd ci bisu aljuma baat bii ñu doon wax ci ngoonu àjjuma muy baatu laa ilaha illallah mooy baat bi gën a tedd ci baat buy génn ci làmmañ baat buy génn ci làmmañ luy génn ci làmmañ laa ilaha illallah moo ko gën a màgg moom lañ doon wax sax di ko waxee ci fan yoo xam ni mooy wal fajri wala yaalin ash fukki fan yi nga xam ni moo gën ci jamono ci lañ doon waxee baat yooyu di ko waxee ci place bu sell bu màgg boo xam ni la Sidaaj i waxoon ne bi azami zamani wal makaani taadumu taatum maa lisaani foofu lañ ko doon wax jëmm ju tedd xam ne ku ko xamul dégg nga ko kenn nag duutu la Farzandax tontu woon Hicham ibnu Abdul Malik mu nekk buur ñëw di aji kaaba gi di wër kaaba gi bi mu ñëwee ak gàngooram bëgg a fóon xajarul aswad mënu ci am accès mu bëgg a fóon xeer yi lu mu daj ko pour moom buur la dañ ko war a xàllal waaye nit ñi sax ni moom teew na ci kaaba gi nit ñi di kaaba gi kenn faale wu ñu dem ba mu yàgg rek Zeynul Abidin na ni tël sëdd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mi kër kër kër kër di ko xàllal xàllal leen ko xàllal leen Zeynul Abidin Zeynul Abidin ñëpp xàllal ko mu wër kaaba gi dem fóon xeer bi ñëw toog di Cheikh Abdou Malick muñ ko muñ mënul koo muñ mu ne man haaja ba kii mooy kan laaju ko ngir xam da koy laaj ngir wane ni kii du dara farda daf daal di jël xalimaam daal di ko ah haaja alladi taarifu lbatha watatahu de والبيت تعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا النقي التقي الطاهر العلج هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بظاهره العرب تعرف من أنكرت والعجب kon Ceerno Abdu Rahmaan Bari ku ko xamul dégg nga ko yàlla na yàlla sàmm la kon nag tabaarakallaahu ñu ngi leen di dalal ci gox bi di leen wax marhaban bikum ahlan wa sahlan waxin la waaye yow mii Ceerno yaa ñuy dalal ci gox bi yow mii yaa ñuy tett ci gox bi kon nag Ceerno Hamdu Rabb yàlla na yàlla guddal si fan yal na yàlla yokk sa wér yal na yàlla yokk sa sutura wa axiru daawana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu ko alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, ñu santaat yàlla bu baax julli ci sàmmkat yi Seydina Muhammad ñaan yàlla yàlla nañ ko téewee déwén ñi ngi yëkkati ay kàddu yi tedd ko ci sëtu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci jataay bi bëti ca moom jaare ko ci suñu sëriñ suñu soppe di nit ku yàlla baaxal di nitu yàlla bokk ci ñi yàlla rus ci jamono bi toll dembe muy suñu wajur yu toog di Cerno Abdourahmane Bari ibnu Abdourahmane ñaan yàlla bur bi borom bi subhanahu wa taala yàlla ko yàlla dooli jàmm yàlla ko yàlla dooli mucc wax leen amin yàlla yàlla dolli ko gudd fan ak wér ci barke Seydina Muhammad ñu bëtt nii sunu wéyuru tedd wi di sunu baay di sunu soppe di sunu sëriñ di sunu am di jàmm muy Thierno Mohamed Rabi Wane di borom. ngoon gi nga xoonu ngoonuk sant yàlla di ngoonuk allah ilaha illallah ñaan yàlla ko ronu tànt bi rek yàlla yàlla sotti ci yow ak jàmm ñu nuyuwaale doomu sëriñ bi di kenn ci sëriñ bi moom dañuy bëgg a jox kàddu léegi waaye muy kenn ci njabootu kër maam Cheikh Seydi Hadji di sëriñ Cheikh Omar Kane nekk njiitu miroir de l'islam soxnaam soxna bu xayri si soxna di nit koo xam ni moom it woy juróom bu tedd wa soxna Asietu bàyyi koog liggéey bu rëy muy fondation Mame Fallou Wellé sëriñ bi boole ñaari fondation yooyu yëpp yor ko muy kenn ci sëriñ bi di goro ci Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ibnu sëriñ Cheikh Tidiane Sy yal na yàlla guddal fanam mi ngi fi waaye sëriñ bi ku taxawul lii am na ñu la ci jàppale ba lii mën a ne moo tax sëriñ bi nii nan leen sant ñooñu ndax ku santul nit doo sant yàlla te sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala daana wax ne baatu jërëjëf baat bu gàtt la mais ku deful dara du mu dégg te ñi def nag war nañ leen wax jërëjëf pour ñi mën a deful lu baax ca xamul lu baax xam lan mooy lu baax ñu ci ki nga xamante ni doomu sëriñ bi la di kenn ci sëriñ bi di taalibi sëriñ bi waaye nekk ku bari njariñ muy le maire de Djidda Thiaroye Kaw le directeur des domaines El Hadji Mamadou Gueye yal na yàlla defal ko jàmm wax leen amin nit bu defee loo xam ne yow mënoo ko wala mu jéem lu mu fexe ba loola taxaw war nañ koo ñaanal ndax kii ronu ci garab nekkalu ca garab googu war na ñaanal suuf ka jàmm pour mu mën a am jàmm kon El Hadji Mamadou Gueye yal na yàlla jàmm ñu ngi lay nuyu nuyu délégation bi nga fi yebal léegi bi ñuy wax ne Serigne Fallou di nuyoo Serigne Ba moo koy wax di ko sant sant madame Guèye soxnaam su tedd sële nekk taalibi sëriñ bi waaye nekk njabootu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass te Cheikh El Hadj Ibrahim léppam Cheikh na Tidiane la ci Cheikh na Tidiane léppam yonent bi la kon maram gee ñi ngi ñaan yàlla bu ñu rom subhanahu lu yàlla di joxe ci maam Adama ak Awa ci jàmm ak barke yàlla yàlla defal la ko ñu ngi lay sant ci turu sëriñ bi di la gërëm ak délégation bu rëy bi nga àndal yëpp nag ci turu sëriñ bi sëriñ bi nee na comme tudd naa ko gàtt bi des bi gàtt boobu sëriñ bi moo ko moom sëriñ Thierno Abdourahmane Bari Mbokkal moo ko moom. dafa am loo xam dafa am loo xam ni. boo ko waxee baax na de. ko waxee baax na de. waaye lu baax lu ne waaye lu baax lu am na lu ko gën a baax. li ngay wër li gën. def ñu def ko. gi tax ñuy sant cant gi tax ñuy sant. damay wax ni bala ngay sant. damay wax ni bala ngay sant. xamal li la yàlla defal la yàlla defal ba pare. soo ko xamee soo ko xamee. di ko yëg di nga ko yëg. soo ko yëgee soo ko yëgee yëg-yëg boobu moo la validé cant ga yàlla moo ni woon ñaan ma ma may la nga sant ma ma dolli la kon boobu dolli bi far force lay doon am déet am déet. ñun xam nañu lu ñu am. ñun xam nañ li am. ba tax ñuy sant ba tax ñuy sant. jotaay bii jotaay bii. ñi may jiital ci cant gi ñi may jiital ci cant gi. ndax peccum liir bu neexee ndax peccum liir bu neexee. nday jamoo tee ca wakk ya man samay wakk nag ki ma téye ma mën a yëgg fii. tey dinaa ko sant waaye cant gi ñaan la ci moom ñaanal ko la ci moom muy kan muy sama soxna may mun a jàll ah waaw waaw waaw waaw lu tax xam naa ko juróom-benni weer maa ngi ci dëkk bi mu dagg biyam mook doomam ñëw ngir fekk si lii sama xel mi bu dalul woon bu ma ko bëggee def du sotti léegi ni daaw toog naa fi sant suma yaayu doom bi nga xam ni yàlla jëlee ko ma sant ko gërëm ko foofu yëpp su ma fa yeggee mooma dëgg la mi ngi nii toog sëriñ bi loolu jox li nga ma ko joxoñ ndax bi ma ñëwee fekk ci suba gi nga def giri ak ni nga yàññee laa ne sëriñ bi leenu xaalis du du du am na lu xew ci laa gestu la sëriñ bi lu nga ni ma sama patron moo ñëw bi mu ne sama patron rek laa xam ne patron des patron la xel mu dal su ma ci jógee tudd nga leen mënoon doy waaye foog ma jaaraat ca ndax nga kat ñooñu samay doom la te nag wane la jataay bu mel nii bindoo kenn lettre de soutien demoo ci kenn ne ko dimbali ma wala nga recommandé ko dara génn ma sama buntu kër daw ma fenn waaye bu melee nii am na lu tax kay ki ci jiitu mooy sama doom sama xarit sama soppe moom nga du Guèye le directeur de domaine yàlla na gën a yëkkati ko sama diggante ak moom yàllay kese la de mënoon na fa yem na fa yem su fa yemoon sax mu neex nag waaye li gën a neex mooy yàlla daf ma ommatal soxnaam mu ñëw gis ma bëgg ma sopp ma ba lii nii tant bii bu taaroo nii moo ma ni du ci boppam bëgguma mu def ci dara tant bi lu mu mën a doon maa koy fay moo toog nii yal na yàlla yàlla waaye wax leen amin waay waaye nee naa la ku nangu def képp ku nangu def lu kenn nangu la def soo ko defee ba noppi bu la neexee nga taxaw fee fëgg sa dënd ne di nga am lu kenn amul. foofu laa bëggoon dugg rek bu ñu demee tey ba lu ñu am ñu def ko ba mu des nag waa ngi ne cerno saw nag la. la ilaha illallah yaa xam yaa xam booy dem léegi booy dem yaa xam nga nan ko boot ko yaa xam boggal nga ko ba yóbbu ko ma nga dee toog yow yow kay soo ñëw ci nee ma Abdourahmane fu mu a dem rek man sama grand boobu bis pareetee ma subi ko fu fu nag wi jëm ma boot ko te yóbbu ko nee na gannaaw xel day fàttu fàttewuñu yaayaa aan mi nga ni xaritu Mamadou Gueye la ci boppam nag bii sëriñ bi ñëre yóbbu moo mënu ko indil مدحنا المصطفى مدحنا المصطفى Cerno Hamdu ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la wàcce sa wàccuwaay di am mbégte kontante ci xéewal bu am solo bii nga ñu baaxee ndax lii kat xéewal féetewu ko kaw cat cat borom bi dafa ne la in shakartum la azidannakum waaw te ku dul sant nag doo am dollante kon Cerno yàlla na yàlla dollil la ba nga yëg ko حللت بباب الحمد كرم ولا بخر حللت بباب الحمد كرم ولا بخر لا حمد ذا البدر شاءك والقمر هلال وشمس نوره منور الأرض وأخلاقه تكفي ونحن بها نرضى هلال وشمس نوره نور الأرض وأخلاقه تكفي ونحن بها نرضى علامة أهل الخير فيه تجمعت ولاية الأولياء فيه قد انتهت يا, يا ساكن بكين جاءكم القطب طفان تبرك فيه فهو لنا كسب هذا تبركا واقتصر لهذه الأبيات القليلة جزاكم الله خير pour bañ a guddal rek dañuy jox Serigne Fallou Serigne Fallou mi ñuy jox kàddu nag moo fi représenté le directeur général de domaine muy nit ku yàlla baaxal ci Serigne bi laa ko xamee ak Moulay Abdoul Aziz Diagne mii keroog bi ñu ko xamee la yor ci koy turandoom Mouhamadul Fadal doo daan fallu yàgg nga daan ku nga lambi soo daan ñoo ngi lay siyaare jërëjëf bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ci di leen ziyaara ci turu directeur général bu domaine waaye ci turu maire di dëccaare kaw ci turu doom ci turu xarit ci turu soppe di Thierno Hamdy Ba sëriñ bi ñu ngi lay ci nuyoo bi ak ziar bi te di la ñaanal yàlla na la yàlla dollee kàttanal jamay la wér léegi rek di sama soppe di wax sëriñ Omar naan na ngeen ñaan man dafa am lu ma suma bàyyi waxoon suma bàyyi def ni ma ñu yàlla nangul fekk ñu ngi dund jàmm di am kon yàlla na fi yàgg yàlla yàlla guddal sa fan ci defal la taw feex sëriñ bi daf ñoo waxaale mu mel ni daf ñu wax ni ñu nañu sant yàlla Ceerno Hamdi ku baax Ceerno Hamdi ku yiw la Ceerno Hamdi ku yéwén ca mboolem lu ñu koy tagge loolee mu ngi ci soppeem ba mi ngi ci doomam ci Cerno Hamdi kuy rogalaat yiw la ci yombul ñu bari dañuy jaay seen yiw waaye Cerno Hamdi da koy maye dafa mës wax wax directeur benn wax bu am solo dafa ma mës a wax ni ma Mamadou Gueye dama koy ñaanal waaye ñaan yi dama bëgg moom mu yëg ni ak cant la ci moom yàlla na la yàlla fay yiw barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag directeur ay kàddoom danañ ko wàcce mu doon ñaari baat kepp nag la wax ne nañ ko wax waaye daje bu mel nii bu nu ci ñëwee ànd ak officier état civil di magam daan ko jàngal yaakaar naa jibde kenn desatu ko bu ñu àndee ak ma yoro sàmm mu dénk ko centre Saliou Dir ndax ak xarañam ak yaroo jidda kenn gis ko li ma gën a yéem nag ci Thierno Thierno dafa njabootu Mamadou ba njaboote njabootu Mamadou madame Guèye baaxul dara dafa yokk yàlla na ko yàlla fay yiw ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa li gën a yéeme mooy nit ki man dara di ko def ba pare wëlbatiku di diisoo bi muy ñëw def ni ma sama bisu bàyyi bopp balaa jëm waaye dafa am nu ma fa war a teewe ndax damay soxna si kilifa ma bëgg a waxtaan ak yow noo xalaat bi noon laa ko war a teewe sama bisu bàyyi bopp la wax de ba pare waaye nag damay soxna si bëgg a jëfe ndigal a waxtaan ak yow nan laa ko war a teewe astu yàlla na la yàlla fay jiw madame Guèye yàlla na la yàlla fay yiw soxna baax jërëjëfati waaye mu diis diis diis da waaye du la bëggal jërëjëfati yàlla dogal bi ñu ñëwee fii it ñu fekk fi ay jàmbaar yu nekk ak yow ànd ak Mamadou Gueye di sa doom di ko jàppale nga xam ni kenn ku nekk ci ñoom matoon na fi sëkk Mamadou Gueye benn képp nag ci Abdou Aziz nga xam ni yàlla dafa dogal mat na la doom ndax man moom képp laa am ci xarit boo xam ne guddi àjjuma bu nekk mu yónni ma mu yónnee ma li ma defal mbir mii ndax yàlla aji dollaa kon la yàlla aji dolli waa kon la waaw yàlla aji dolli waa kon la Abdul Aziz yàlla na yàlla fii ji dafa waxoon ne xam na li ko Ceerno defal xam na li ko Ceerno yéene xam na li ko Ceerno bëgg ndax moom bu indiwul woon Ceerno fii ci barab bii bu Ceerno nekk bu ko fa woowee mu wuy ndax xam na ni bari na lu muy wut yaakaar ci jëmmam ji ci jëmmam ji jar na képp la koy wax. barab bii ñu toog tey wóor na ko ni yokku gi di jaare kaw la waaye yokku département bi gën la directeur général nee na Thierno mënu laa fay ndax xam na nag yaa ko jàppal biir yaa ko jàppal biti kon amul sa fay waaye directeur nee na na Thierno ñaanal réew moom wóor na ko ni réew mi du tàkk ndax ñu jëmm yi toog fu ñu toog yàlla rus leen waaye Cheikh danaan wax na yàlla dafa jombal toroxal gor waaye ñoom fu ñu nekk jàmm di fa am ñu bëgg nga ñaanalal ñu réew mi réew mi nag maam Abdou dafa am lu mu waxoon daf ni boo duggee ci gaal bi ak sa ëmb bul ñaan ëmb bi mucc waaye ñaanal gaal gi mucc directeur général Mamadou Gueye nee na na nga ñaanal président Macky Sall yéeneem ci sénégalais yi yàlla suñu boroom àggale ko ndax bari na lu mu nësal surtout ci biir këri diine yi Mamadou Gueye dafa am lu mu waxoon dafa taxaw ci mbooloo ni jumtukaay yi ma yor président Macky Sall moom ko jox ca Baye seex nee na Baye Cheikh nee ku la gërëm xas sa baay gërëmu la da saaga président Mamadou Gueye nee na nanu ñaanal réew mi jàmm waaye ñaan nañu ñaanal président Macky Sall yàlla suñu borom dund ak sutura loolu moo doonoon kàddu yi directeur wasalaamaaleykum. auzu billaahi mina seytaani rajiim. rahmaani rahiim.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 ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وعطف قلوب العالمين بأسرم علي وألبسني قبولا بسلمان وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا بالأحوال عزيز الحمد لله الذي هدانا لهذا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 المنقوطة بثقة الأصوات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المقدوم أبي العباس تاج العارفين ممد الأولياء بيت الولاية سجنجل الأقدار إنسان الكامل أحمد بن محمد الصليم التجاني بقي جنا بن سبت يالله ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wala fii dañuy faral di wax ne li tuuf ci nag wi xajul ci cin li nañu ubbil sëriñ bi mu waxtaan ak ndax noppi yëpp ubbeeku na di jox xol bi mu ngay taataan te taataan boobu muy taataan ka ca war a sotti bu ca sottiwul rek bu boobaa itam lum taataan dafay tuuruwaat ki war a sotti ak ki war a taataan dajee nañu ca fa ñuy muy kan mbooloo ak kan sëriñ bi sëriñ bi nag dañoo bëgg nga sottil ñu ba suñuy a yi fees ndax loolu la la yàlla yónni ci jaam loolu mooy sa kon ñu bàyyee sëriñ bi kaddu gi waaye di fàttali zunub ziyaar bi nga xam ne moom la sëriñ bi di def ci at mu nekk ca boggal ca Casamance jàpp nañu ziyaara bi la 15 la 16 la 17 ñu di ko yëgal mbokki jullit yi ak mbokki talibe yi ziyaare général bu boggal jàpp nañu ko la 15 ñu di ko yëgal mbokki jullit yi sëriñ bi mu ne mu ngay dollee sant yàlla ca la mu li yàlla defal ñu ko ndax mu dolli sëriñ bi mu ne waaye di dagaan yàlla dolli nu bi mu ne sant koog nag yàlla daf ñu cay musal ci lépp lu ñu naroon a sëriñ bi mu ne dëgg dëgg ñun lu yàlla feeñoo ñun ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin sëriñ bi mu ne waaye ñu ngi muslu ci melakaanu ñi narta dem aljanna sëriñ bi mu ne wante dëgg dëgg sant fu mu mën a ko yàlla rek ko moom sëriñ bi mu ne wante muñ gu rafet kenn mënu am te delluwu la ci sa borom sëriñ bi mu ne waaye réerée gi di ko waral mooy dañoo war a jàngaat sunu diine sëriñ bi mu ne waaye mucc ak xewal yal na nekk ci sunu yonent bi Muhammad ak ñoñam ak saxaaba sëriñ bi mu ne gannaaw bi ñu sante yàlla ba julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi mu ne ñu ngay nuyu mbooloo mi yépp nag sëriñ bi mu ne mu ngi leen di siyaar. sëriñ bi mu ne la mu nuy fàttali loola lay fàttali boppam mooy ragal yàlla te di ko jàpp. sëriñ bi mu mu jëfandiku. sëriñ bi mu ne mu daal di jëfandikoo moom Hamdi. hadisu yonent bi ci diine ji. hadisu sayyidina Muhammad ca diine ja. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na diina daafante biir la. yëgal na ko mbokk yi. yëgal na ko mbokk yi. yëgal na ko dëkkandoo yi. yëgal na ko xamee yi. waaye yëgal na ko jullit ñi ñépp nag kon nag la yàlla ne woon yéen ci yàlla Muhammad jullit ñi ay mbokk ngeen na ngeen rafetal seen mbokkoo itam am di jëfandikoo la ko sëriñ bi mu ne kon nag xam di jërëjëf ci liggéey bi وأنفسنا وأهلنا وخواتيم أعمالنا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد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 وارزقنا أن نتبعه وأن نحل الذي يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تدرك به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تصرع به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتنا إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا آمين وتزمع بها أمورنا آمين وتلم بها شأشنا آمين وتصلح بها شأننا آمين وتحفظ بها قائبنا آمين وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين ورحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أكرمنا برحمته تغنينا بها عن رحمة من اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبداعتك عن معصيتك واقفنا بفضلك وجودك وكرمك عمن سواك اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا تقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وأعلنا سؤالنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين na mi moom Cerno la ah. Abdourahmane mi moom kenn la maa ngi way Cerno tey gërëm hmm. yàlla buur bee amal lu am Abdourahmane moo di xalifa tarixa Cheikh moo ñu teeree ba fargalam nekkul suufi ci wàllu ndaw hmm. doon na mawsuul bu ñëpp xam Cerno Bari moo di sun jamaa bayna urbin wa min ajam am na xam-xam ba raw ci maasam kooko tëkkaleel gisul ba ndem képp kuñ wax ne yaa moom tolluloo ci catuwe jëf yi mooy jëfam jëmm yónneen de mooy jëmmam mooy ku baax lool te am lu mu ñaan mu daal fa yaa xajaban li sayxinaa cerno xam-xam de mooy dundam ili yinaa di ak keram kaw sara moo di am waxam alquran moo di ay waxam muhammadu rasulullahi moo di wettalam moo di tànneef ci aw nitam man de em naa ko may la am moo tabe nekk nit ku nooy moo di géej yaatu siy jënam cernoo di xawsulul bariyati xettale moo di ay mbiram cerno laajul kenn benn dërëm boo ñëwee jox la lay gërëm cerno bari mi gisuñ kéemam fii si duniyaa ci ay mbayam bàyyi Mansuur amul moroom yàlla buur bi mooy ki xam jëfam lool limi doo dajal jëfam mooy ileer moo setal mbayam lu ñu amit moom la gërëm fu ñu demit moom lañuy ñuy xalam bu doonu doon Cerno dañuy gëlam moo ñu tee jaamu ay xaram sakku na ñaan si yàlla buur may ko ndam yokk aw fanam képp kuy jàng yàlla na xam képp kuy wut yàlla am lépp luy barke si dërëm yàlla na taw fii ci meññatam Seydi Ahmada ko way di ñaan